ngi tiwaawoon ba tey rek di ziar xalifa bi di ko ñaanal yàlla guddal fanam wéral ay cëram mu sëñ Babacar Sy Mansour ñu jaajëfee suñu papa Bekaay Mbaye fii ci kër Abdou Aziz Ndiaye tey nag li ma lay laaj rek mooy lu waral teewaay bi fii sa diggante ak Abdou Aziz Ndiaye père Bekaay ginnaaw bu ma la ziaree. waaw ginnaaw man tam bu ma la fayee ah di am mbégte lool Babacar xam nga Babacar moom woykat ba woyoon na ko Galo Mbaye mu ne Ababacar ma doon yoon nen dem na nuróob mi doon Maalik moo ma daa gëm boole kooku fit mbooloo mi bëgg na nu yokk nga mbooloom Seex ti Tijaan loolu la Gallo Mbaye woyoon Sëriñ Babacar te tey jii nag bis la boo xamante bisu yonent bi la te Sëriñ Babacar baayam moo defaroon bis bii fii ci Tiwaawan te booba Tiwaawan tolluwul nii bu ñu demee ba toll nii bokk ba ba Alaaji Maalik di def gàmmu booba ñoom ñett la nu woon wala ñaar aw xoraan la ñuy jàng ba bët set ñu naan seen ataay lekk seen biskit léegi monsieur yi yaa ngi ci berndeel yaa ngi ci lépp a ngi ci loolu li muy firnde nag mooy liggéeyal yàlla boo liggéeyalee yàlla rek ñëpp wuy si la boo liggéeyalee yàlla du fay te yàlla dogal na ndax ñu ñëw fii taxaw ki nga xamante ne ni moom moo di moom moo di Aziz ànd ak moom ndaxte toujours mi ngi ànd ak ay xarit na boo fi ñëwee ni nga fi fekkoon daaw rek nga fi fekk ñi fekkoon daaw rek ñi may gis ñëpp kenn ma ci ndax ñëpp fekkoon naan lu Aziz xew la ñu ñëw loolu tamit mooy wanee kóllëre relation bu humaine relation diggante nit tam morom ma te loolu yëpp tegu ci yoon lu rafet moo tax bu Aziz xewlee Aziz na sama jarbaat la yaayam sama kóllëre la yaayam sama lépp la kon bu xewlee nag il faut man ma ñëw waaw loolu nag moo am moo waral teewaay bi. leneen li mooy kenn dama seet tamit si Père Bécaye mu mel ni ki nit ñi wala sax sénégalais yi la plupart ñi ci ëpp bokk dañu mel ni ku koy xëccoo maanaam foo dem bu fa ñëwee day mel ni daal ñoo ñoo ko maanaam ñoo ko juddule soxna si na nga def yaa ngi ci jàmm soxna gi mu mel ni fi ñuy waxee tamit kii yegg si na mu mel ni gis nga li ma doon wax ci yow rek kii mooy Aziz lépp Aziz kii la kii dafa bëgg Aziz lu Aziz dugg mu dugg ci lu Aziz lu ko Aziz boole mu dugg ci Elimane te moom ak Aziz danoo yàgg bare na looy dégg Aziz waa jaa ngi Elimane moo ko ca dugal lu ko lu ko Elimane ni Aziz dugal ci nangam Aziz dugg ci lu Elimane dugg bu ca woowee Aziz Aziz fekk si ñoom ñaar daal meew ak soow la waaw boole naan wala boole tuur yàlla na yàlla guddal fanam nit ku baax la Elimane réaction bi dafa daw yaram père Beka mooy Aziz rek moom moom moo tette Aziz nag Aziz le dit haut du ay mbiru làmb xam ni dañuy foog ni Bekaay làmb la waaye dictionnaire la ndax dëgg fa la moom moom Aziz mooy tette lu bari si lu bari nag xam nga làmb moom daanaka day wàññi chiffre daffaire Aziz de mooy vingt pour cent te si nekkoon loolu tey yëpp du am mais si lu muy yëngutu Aziz si am sax saa mu ngi ci bu baax a baax kilifaam la magam la léppam la yàlla na yàlla def jàmm jërë ngeen. mais yow yaa Aziz ni benn ngeen de comme ni mu wax rek. benn la rek benn la man Aziz benn la ñu wallaahi benn personne la même ligne téléphonique la sax loolu la gars yi benn benn ligne la jàmm jërëjëf merci beaucoup. soxna si na def. yaa ngi si jàmm. soxna gi tey. mu mel ni fi ñuy waxee tamit kii yegg si na mu mel ni gis nga li ma doon wax ci yow rek. kii mooy Aziz lépp Aziz kii la kii dafa bëgg Aziz lu Aziz dugg mu jugg ci lu Aziz lu ko Aziz boole mu dugg ci. Elimane te moom ak Aziz danoo yàgg bare na looy dégg Aziz waa jaa ngi moo ko ci dugal lu ko lu ko Elimane ni dugal ci nangam Aziz dugg ci lu Elimane dugg bu ca woowee Aziz Aziz fekk si ko ñoom ñaar daal meew ak soow la waaw boole naan wala boole tuur yàlla na yàlla guddal fanam nit ku baax la. Elimane réaction bi. réaction bi dafa daw yaram père Bekaay mooy Aziz rek moom moom moo tette Aziz nag. Aziz le di au effort du ay mbiru làmb xam ni dañuy foog ni Bekaay làmb la waaye dictionnaire la wax dëgg fa yàlla moom moom Aziz mooy tette Aziz lu bari. si lu bari nag xam nga lamb moom daanaka day wàññi chiffre d'affaires Aziz de mooy vingt pour cent te si nekkoon loolu tey yëpp du am mais si lu muy yëngutu Aziz yi am sax saa waay mu ngi ci bu baax a baax kilifaam la magam la léppam la yàlla na yàlla def jàmm jërë ngeen yow yaa Aziz tam daa mel ni benn ngeen de comme ni mu wax rek benn la rek benn la man Aziz benn la ñu wallaahi même benn personne la même ligne téléphonique la sax loolu la gars benn jërëjëf merci waaw ba tey mbokk yi dégg ngeen Bécaye Mbaye suñu papa wax na Elimane Lam moog Aziz defe naa benn lañu wax nañu tey ñu nekk Tiwaawoon ci gàmm gi rek di ndokkale Abdoul Aziz Alamine mu daal ñu tamit fii loolu tamit ñu di ko wax fii ñun waa Leewtoo ci këram. ñu ciy profité di ko sargal ci loolu mu def mais tamit di nuyu suñu directeur Pape Thialis Faye Aziz maa ngi lay nuyu di la ziar. dama gis dama dang ñu dalal sa kër ñu gis kër gi ni mu mel nit ñi macha allah ñëpp di ñëw Aziz Aziz maanaam lu xew. sant yàlla sëñ Babacar ñu ngi lay nuyu di nuyu ñëpp di nuyu comme ni nga ko waxee sa directeur général Pape Thialis ah, di nuyu waa Leewtoo yëpp. sant yàlla rek weeru gàmmu la ñu nekk te nit ñu ko jàngalee ak nit ñu ko diggalee mooy daloo gan ñu dalal leen te teg leen ci ay conditions yu bien. ci loolu lañ nekk rek ngir liggéeyal Seydil Hadji Malick wax dëgg yàlla ci loolu lañ nekk. ma jël fi ma gis fi ay nit yoo xam ne tamit ñëpp jege nañ la mais ñooñu dañ ma dama jàpp ñu la gën a jege ci lañ bokk ku mel ni père Bekaay mbay mu wax ci yow wax ci sa wajur wu jigéen ak yooyu sa diggante père Bekaay loo ci mën a tënk. waaw père Bekaay mën naa ne ndijaay la ci man parce que li tax ma ne ndijaay la moom sama yaay ay dëkkandoo la woon ca Grand Dakar. loolu jiitu na suñu judd kon bu ñu juddoo gis ko vraiment mu àndoon ak sama yaay nekkin bu rafet ca Grand bi nga xam ne fa sama yaay nekkoon bon ñun duñu mën def lu tam topp ci tànk yooyu Bécaye ah suma ay premier pas ci làmb wax dëgg yàlla Ngañ Jaañ ma mu boole woon ak moom maa ngi gërëm di nuyaale tam Ngañ Jaañ bu baax a baax ah boobu léegi nag ñu am ay relation yu bien am ay relation yoo xam ne yu correct la yoo xam ne diggante jarbaat la ak eh, mbiyaay ah moom mooy conseiller ànd ak man ci liggéey bi ma daan def ci jamono yooyu ba fii ñu toll nag relation bi foofu la daami démarré woon mais yàlla def na daal wax dëgg yàlla at mu jot gàmm gu jot day nekk fii ci man suñu kër wax dëgg yàlla bu gàmmu Ndiassane jotee tam ñu dem dal moom waxtaan ak moom jàppale ko ci ci ci ci ci gàj ci Ndiassane wax ah, dëgg yàlla Elimane Lam tamit wax na ci yow ba tey lépp ci Leewtoo TV la waxee seen diggante mu mel ni yéen ñaar kenn ngeen la wax nangulun sax a wax mais fexe nañ ba mu wax ci yow waaw kon am nga lu jafe ndax Elimane wax sax man ak moom du ñu ñaari nit benn nit lañu su ma diggante moom nit su ngeen demee ba tuddante doom tey ku ma ko tuddee léegi mu am na cinq ans ou six ans ah su ma digganteeg moom comme ni ma koy faral di waxee du ñu ñaari nit kenn nit lañu c'est mon frère c'est mon ami du ma maay moom mooy man donc man ak moom yàlla moo ñu boole te boole ñu boole yàlla ñu yàlla sàmmal suñu diggante te sàmmal ñu suñu ànd du ñaari nit kenn lañu loolu rek doy na lépp tënk na lépp wax dëgg yàlla. parce que per Bécaye sax ci wax xam ne ne bëri na luy yëngu ci Aziz Eliman mi moom la. waaw man ci àddina rus naa def dara te waxtaanu ma si ak moom Eliman rus na def dara te waxtaanu si ak moom ak man luy xew suma kër dina ko yëg maanaam dañuy dem ba sax nit ñi dañuy wax ni man ak moom benn numéro téléphone la parce que loo wax Eliman à la seconde qui suit du la wax waaw wala du la wax déet mu te waxtaanu ci ak man. man tam c'est la même chose lépp lu ma dugg ci àdduna wala lépp lu ma dugg ci àdduna dañ ci d'accord muy suñu ay biir kër suñuy jabar suñuy liggéey suñuy lépp foog ñu déggoo ba déggoo ni lii war nañ ko def tey su ma jàppoon dara bëgg ko def bu ma nee bu ko def dama koy bàyyi su jàppoon dara man ko bu ko def da koy bàyyi noonu la ñu àndee ànd bu dëggu nag bu sincère yal nañu yàlla sàmmal suñu ànd damay ñëw ci gàmmu gi eh, parce que gàmmu gi tamit fu ñu ko tuddee ñu ñaanal xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour mu yàgg fi te wér xel yi dem ci Aziz parce que par rapport ak ni nga nekk taalibe Cheikh benn mais li nga ciy def gis nañ nag yi gis nañ ganaar yi ay gileem ak lu nekk gis nañ ko bu ma la doon laaj tey budget boobu loo ma koy tënkal si xaalis ñaata la. Ah, wàllu budget ci wax naa ko waxati ko gàmmu ñun amuñu habitude di wax budget ndax nee la gàmm bu jotoon ñu laa ñu suñu bakkan sax ñu joxe ko ndax ñun amuñu lu dul Seydil Hadji Malick liñ ciy def duñ ci duñ ko defee ak sago liñ ciy def duñ ko defee sax ak calcul duñ ko defee dara gàmm moom dañ koy gàmm ba gàmm gi jeex te duñ ko yëg te duñ ko métit lu duñ ko naqarlu dañuy am mbég am kontante di ci def kon nit li muy def di ci mbég di ci am mbégte kontaan ci du ko utal lim du ko utal app du ko utal budget te yellul sax ci ngay def dara di ko utal budget naan gàmm dinaa ci def nangam ñun ak xamuñu loolu dañuy def rek ba gàmm gi neex wax dëgg yàlla. ma gis na tamit euh, parce que euh, ñun bu ñu la xamee làmb tax ñu xam la yaa ngi dégg làmb lañ la xamee mais l'essentiel que nag dañoo ñëw ci bésu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di waxtaan mais tamit gis naa fi sax ay promoteur gis naa fi Daouda Diagne boobu wala ñu mel ni ki noonu sa diggante tamit ak promoteur làmb yooyu. waaw ñooñu en dehors de promoteur dañu am ay relation yu ay relation amicale yu rafet ay relation yu sincère Daouda Diagne suma xarit la. Assane Ndiaye Fallou Kanji Prince Jibi Ndiaye promoteur yooyu yëpp suma ay xarit lañ ñoo bokkoon métier bu ñu doon def naam bu ma ko nekkatul ñoom ñu continuer di ci nekk day tax day continuer suñu relation bi ñoo xam ku ci xewle mu jóg dem ci loolu ñoom it su ma xewlee Tiwaawan damay kontaan ci gis leen fi ñoom ñëpp vraiment ay relation yu bien la am ak ñoom ay relation yu correct la am ak ñoom ay relation amicale yu sincère la am ak ñoom ñëpp ba ci Pape Abdou ñëpp wax dëgg yàlla. sa diggante ak Bada Dione bu Bawol. non Bada Dione suma doomu ndey la. Bada suma xarit la Bada suma xarit la sama doomu ndey la suma nit la man ak moom relation bi ñu am relation bu sincère la Bada xamante nañ ëpp na 15 ans bi ñuy xamante boobu wax dëgg yàlla yàgg na lool mu nekk suma frère. nekk nit ku baax yàlla na ko yàlla jàppale moom bada moom suñu bada la quoi suñu nit la sama xarit la dëgg yàlla waaw sama xarit solo fi ñuy jeexale nag mooy tey yaakaar naa ne nag yi nga fi yeewoon nag yi yaakaar naa fu ne dafa maanaam kër diine yi fa yónnee ay nag ci ñuy jëf gàmm bi yaakaar naa wala. waaw ñun am nañ habitude fépp foo xam ne lu baax am na fa dinañ ko sàkku gàmm bu jotee ñun dinañ ko yónnee Kaolack dinañ yónnee Nja Kaolack yónnee Kaneen yónnee Ceneba yónnee ah wax dëgg yàlla dinañ ko yónnee ba yónnee ko paal sax fa dëgg ko alaaji rawaan ngom fépp fu ñu yaakaar ni fu baax lu baax nga fa rek dinañ fa jéem a teg suñu tànk su màggal jotee itam la même chose la ñuy def bu njaasaan xewlee itam la même chose la ñuy def ak dëkku diina yëpp ndax Sénégal ñun loolu lañu ñu war a wane image bu baax li gën ci ñun lañ koy wane te ci ñun loolu lañ bëgg a dox di wane li positif rek te jaamu yàlla warul am frontière te ñun dañu bëgg a nekk ay taalibe Cheikhouna Tidiane yi te gëm naa ne taalibe Cheikhouna Tidiane yi warul am frontière ci ci sàkk lu baax fépp fu mu ko yaakaaree te yàlla ah. ba tey gis naa fi tamit mbàkki mbàkki yi ay nit yu déplacé wu ñëw fii mu mel ni kon tamit li nga wax noonu am na sa digganteeg waa Touba dafa mel ni rattax am na ci bu baax a baax. waaw sant yàlla man gëw ma ku ci ne mën nga am ki nga yaakaar ak kala doy nga ànd ak moom ci ci ci mag ñi ak ci góor yàlla yi. waaye en dehors de ça ñun ñoo bokk ndey ñoo bàkk ba baay ñoo bokk réew mi ñu dëkk ñoo bokk dooni jullit kon lu waay xewle te sa morom am jot muy Touba ak Ndiassane ak Tivaouane nag fu mu mën a doon ñun ñëpp dañu war a àndal bokk ndey bokk baay su loolu weesoo na ku ci boo delloo sa kër am sa néeg nga dugg fanaan ca néegu kala doy waaye ëtt bi ñoo ko bokk muy ëttu Seydina Mohamed yàlla na rafet yàlla nañu àndandoo yàlla nañu bokkoo yàlla nañu ñun ñëpp den benn incha allah am na ku ñuy wax Khady Rose Ndiaye Allemagne la ne soppe taalibe Cheikh la mais sa soppe la daf ma yóbbante ci yow defe naa mat na at dama bëgg rek Aziz nga nuyul ma ko fii Khady Rose Ndiaye sa doomu baay la wala sa doom sax laay wax. Khady Rose Ndiaye ca ca Allemagne maa ngi koy nuyu népp lu ma soppe rek soppe naa ko lu ko raw ngir Cheikhouna Tidiane man képp kuy taalibe Cheikhouna Tidiane rek damay am cafeel ci yow am soppeel ci yow sopp naa ko ngir Cheikhouna Tidiane yal na yàlla barkeel ko yal na ko yàlla ko. kontaan ci yow maa gën mais na gars yu bëri nag Leewtoo bi yàgg na de. <laughs>